عليه صل وسلم بالكرام وهب بي لي الأمن في الدارين والبصراك دعوتك اليوم ساقر لداء أبدا رل العين ورل الجن والبصر في رجب ما أنت تعلمه فلتكفنيها وهب للآية والصوراء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يديم على عجبي wa salli anni sarmadan wa sallimi ala wasilati safii sullami sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lxaali wal maali mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen siyaare bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala jataay bi yàlla na ko gërëm te yàlla bu mu nekk suñu mujjug jataay yàlla nañ ko yàgg taxawee te ànd ak wér ak tawfiix yàlla sàmm ñu sàmm njaboot yi comme ni ñu ko xamee li ñu fi tax a toog tey mooy waajal bés bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku imaamul aimma cheikh abdul xaadir radiallahu anhu wa nafaana allahu bi barakaati ci wàccaay woowu ci la nekk kon lii ab jukki la rek bu ñu jagleel kenn ci njabootam muy soxna maam Buso rahmatullahi aleyha ñu war ko waajale kon laltayale ko bis boobu nga xam ne mi ngi ñëw gi suñ kanam waxtaan wi ni ñu wax ne noonu lañ ko bëgg a doxale mooy dinañ ko ubbee ak ay ay alquran su ñu noppee ci loola am na lu ñu wooyee kalimatu tarxiib kàdduy dalal gan ñi loolu njabootu sëriñ Abdul Hakim ñoo ko war a def ki ko war a def si ñoom mooy Cheikh Mouhamadul Bachir mii al imam su ñu noppee ci loola dinañu def taqdimul muxaadar wal muxaadara bi ni ñu ko tuddee ren mooy al wafaau bil matal kóllëre moo wax ne matal kóllëre day kàddu la goo xam ne jikko moo koy jëmbal jikko jooju ko doon jëmbal nag dañuy xool sëriñ Abdul Xaadir moom naka la doon dunde loolu naka la ko doon jum jëmmale loolu ki ñu koy defal mooy ki war def mooy al oustaz al docteur Serigne Moussa Ndoye di koo xam ne doom la ci kër gi di taalibe ci kër gi daraam génnul kër gi ndax ginnaaw baayam daf ko tegoon ci loxol sëriñ Abdul Hakim rahmatullahi alayhi mu teg ko ci loxol Cheikh Mahmadul ay ayyadahu llahu wa nasara mu teg ko ci loxol sëriñ Moustapha Bachir kon moom daraam génnul kër gi mu mel ne gone Tuubaa yépp rek jaar fi mu war a jaar ci jàng ci gëstu xam-xam ba yàlla dogal tey jaar na ay jaar-jaar yu bari xam nga ne baatu doctorat moom boo déggee ñu tudd ko rek kon kooko góorgóorlu na incha allahu taala moom mooy war def waxtaan wi su neppee ci waxtaan wi tam dinañu def ay taaliqaat yoo xam ne ki koy def mooy Cheikh Mouhamadul Amine Diop moom itam su noppee am na ab jukki bu ñu war a def ci dunduk soxna maam Bousso mbakk mii nga xam ne moom la ñu jagleel bis bi bintu al imam su ko defee ki ko war a wax mooy ki ko war a waxtaane mooy Abdourahmane Faye suñu noppee ci loolu eh, kàddu gi nga xam ne Cheikh Abdoul Khadir Mbacké moo ko war a def ci turu famille bi kàddu googu itam euh, jox nañ ko Cheikh Mamadou Bachir mii moom Cheikh Abdoul Hakim moo ko war a def kalimatu Cheikh Abdoul Cheikh Sidil Muxtaar noonu laa ko tàmmee wooye sëñ Sidi moom itam ki ko war a def mooy sëñ Mbacké Abdourahmane suñu noppee ci loolu nag kàddu gi nga xam ne moo ci mujj Euh, kooku Serigne bu Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko war a def incha allahu taala pour ñu tëje ko jotaay bi kon xam naa. sëñ bi moom bii bokkul ak bii kalimatu tarxib. waaw sëñ bi kalimatu tarxib bi lay def. waaw sëñ kàddu sëñ bi nga kon incha allahu taala ñu déglu ñu jéem a jàng ay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 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم حقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ۖ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب sadaqa Allahul aziim. bismillah alhamdulillahi waxda wasalaamaani ala man laa nabiyya ba'da mbokk jullit yi ñu ngi leen nuyu nuyoo ba gën a mat nuyoo ba gën a tedd di nuyoo bi lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci turu njabootuk Cheikh Abdullah al Hakim te sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké di kilifa ga ci lañ leen di nuyoo di leen yaatal di leen tatagal di leen dalal ci sunu bis bu tedd bi te loolu itam ñu ci njëkkee njabootu Cheikh Abdoul Khadir ci teewaayu sëriñ Sidi Mokhtar mu Cheikh Abdoul Khadir ak njabootu Cheikh Abdoul Khadir gépp ak euh, délégation bu mu àndal rawatina ñi nga xam ne ñoo yor wàllu taxawaayu màggal bi di ko yaatal bu baax te di ko dalal bu baax di ci teg sunu mbokki bopp yi nga xam ne ñoo bokk ci maam maharam ak mbokki taalibe yépp ak mbokki dëkkandoo yëpp nga xam ne ñoo wuy si woote Cheikh Abdoul bii di sunu rakk nga xam ne bu ñu ko wuysee wuysi nañu njabootu Cheikh Abdou gépp kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di dalal di leen tatagal di leen yaatal ci turu njabootu Cheikh Abdou gépp loolu yi mooy li nga xam ne mooy ndigalul ubbi jataay bi kon nag li ci des dañ koy bàyyee ni nga xam ne noonu lañ ko tërale incha nu fas yéene koo ànd ñun ñëpp jërë ngeen jëfati asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani arrahim wa wa sallama wa barak ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi mawlana cheikh alxadim wa sallama tasliman kathira rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli علم فؤادي من لدنك علما ونورا قلبي وزده فهما yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo ya gën a tedd ya gën a màgg di leen ziyaara bu baax te di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi sëriñ Sidi Maxtaar ibnu cheikh abdul xaadir ak mboolem njabootuk sëriñ abdul xaadir gi mu àndal di teg ci nuyoo bi ñi nga xam ni ñoo fi teewal sëriñ bi te nu waroon koo jiital sax eh, di ci tudd sëriñ Shuaybu Mbakke ibnu cheikh muhammadul muntaqa ak Serigne Cheikh Abdoul Latif ak mboolem délégation yi bi nu àndal yépp ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di di ci teg njabootuk euh, Cheikh Abdoul Hakim ca bopp ba Serigne Cheikh Ahmad Mbakke euh, sunu yaakaar di sunu wasiila ñuy ziyaara bu baax di fedd li kóllëre ak maam ya ak bàyyi ya di nuyu mboolem taalibe yi fi teew yépp yi bàyyi seen soxla ngir soxla si nga xam ni mooy soxla si gën a am solo bokk na ci yi gën a am solo kon yàlla ni yàlla may jataay bi tuyaaba ja nga xamee ni moom la ci sëriñ bi digle woon ci jëmm ju màgg ji bi mu ganee àdduna te mu wax sëriñ mam Thierno ni ko koo dajeel jéggal nañ wala koo dajeel yaramam araamal na safara kon yàlla na yàlla def tuyaaba jooju ak yërmande jooju ci mbooloo mi yépp wàcce ki ci askan wi yépp mbokk yi tey eh, bu nu nee dañuy wax ci thème boo xam ni moo tudd kóllëre mottili kóllëre eh, ñu ni mottili kóllëre ak nite la waaye jikko yu doomu aadama la joo xam ne dañ cee bëgg a joxe benn misaal boo xam ni moo koy jëmmal muy jëmm ju tedd ji di Cheikh Abdul Xaadir ñu joxe ci ay exemple yu néew yoo xam ni lu baree bari la te kenn mënu koo xalam ci jataay bu toll nii waaye li ci gën a am solo mooy wàccuwaay boo xam ni moom la ko lislaam jox muy feddali kóllëre waaye dinañ xam ci biir tomb façon yi nga xam ni mooy feddali kóllëre yan façon la yan xeet la dinañ xamit waliyu yàlla yi laata ñoom ne ñi nga xam ni ñoo nekk ay yonent ñooñoo danoo amee woon jikko bi mel noonu dinañ ci laa tolluwaayu waliyu yàlla yee dinañ ko indi ci wàll googu ci ni nga xamee ne noonu lañu amee woon jikko boobu waaye dinañ ñëwaat ci ñi nga xam ne ñoo doon mottali kóllëre te alxuraan tudd leen waaye ñu wàcc ci nan la ko Cheikh Abdou Khadir dunde woon ci misaal yu néew yu gàtt incha allah mbokk yi tem bi dañ koo jagleelu mottali kóllëre waaye ñu tudde bis bi sunu wëyjur sunu sëriñ doonoon sunu lépp muy soxna maam bu sa mbàkke rahmatullahi aleyha yal na ko yàlla dolli leer fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na barke ak xéewalu bés bi wàcc ci moom man kon tey thème bi damay tàmbalee ci sama jëmu bopp laata ma lay indil kóllëre man kóllëre laa ci kër sëriñ Abdoul Hakim soxna maam bu sa tey damay mottali kóllëre moo tax tey ma thème bi bin ma ko joxee masant bu baax ndax man kii sax mu ngi naa docteur waaye déedéet man taalib baaxis laa damay gëstu ci doctorat may ñaan ci bis bi mu mat ak jàmm maa ngi def sama tem ci lu jëm ci eh, manahiju ulama as Bamba wa El Hadj Fawti Tall na muusajat en muusajat kon ñaanal leen ma mu mat ak jàmm incha allahu rabbi Euh, kóllëre laa ndax lu tax mooy man kontiwaatunu ma woon ci wàllu xam-xam demoon naa ba ban ma ni faatu naa ci àll bi maa ngi koy won sëriñ bi léegi leetar boo xam ni soxna maam sa moo ko bind moo ma delloo si waat ci turu sëriñ Abdou Hakim kon kóllëre googa lay fas yéene motti lu gudd la duma ko mën a kii ci jataay bi ndax taxu koo jóg waaye foofu rek laay doore ne kon kóllëre bu nu ko waxee dafay doon loo xam ni njariñul jullit yi la njariñul lislaam la te lislaam dafa dikk saalix li kulli zamanin wa lislaam dafa doon loo xam ne dafay defar tey di defar ëllëg ci jamono bu ne ak saa su ne ak fu mën a doon moo tax kóllëre bu nu ko waxee alquran daf ko tudd ay yooni yooni yoon bu nu xoolee baat bi ni mu ko binde ifaul ahd wala wafa bil ahd alquran indi na ko ci baamu baamuwaat ci lu toll ñaar fukki place ak juróom yoo xam ni alquran tudd na ko mottali kóllëre mu doon loo xam ne melokaanu yàlla la laata nu naa doomu aadama yàlla moo melowoo melokaanu kóllëre bokk na ci ay melokaanam yàlla dafay wax ni ci alquran wa man awfa bi ahdihi min allah muy wane melokaan mu ne ana kan moo gën a mën a mot mottali kóllëre yàlla kon yàlla jël na ci melokaan melokaan yi boppam ya tuddee ko kóllëre alquran indi ko ci ay maanaa yu wuute am na fu muy wax wawfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula loola ca suuratul israil yàlla di wax ni mott li leen kóllëre ndax kóllëre yàlla da koy laaj ëllëg lépp loo xam ni nag dañ koy laaj ëllëg yowmal qiyaam doomu aadama war na caa bàyyi xel surtout muy loo xam ne nag yàlla da koo indi ci baat bu leer naññ ci biir alquran amul dara loo xam ne dañ ko cay taawil wala ñu koy wëlbati inna al ahda kaana mas'uula kóllëre dañ koy laaj yowmal xiyaam euh, kon am na ci ay aaya yu bari waaye li ci ëpp solo mooy ni yàlla dañu koo dénk jaarale ko ci sayidina muhammad mu nekk melokaan benn melokaan ci melokaani gaa yi yàlla yi yàlla tagg ko mu nekk melokaan boo xam ne da yàlla daf koo bëgg doomu aadama melo yi ngir defar tayam defar ëllëgam moo tax mu naa ca suratul an'am moom la tubbee ubbee aaya ba yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqud mottali leen pas-pas yi wala contrat yi wala kóllëre yi kon yàlla danoo sant ñu mottali kóllëre digal nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci màndargay jullit wala màndargay ku dëggu jël safaan bi muy fecc kóllëre mu def ko màndargab naaféq te naafiq moo gën a bon ab yéefar ndax yéefar yàlla nee na da koy dugal sawara rek waaye waxunu ci koñ ba wala ca ruq ba wala fenn fu mu koy dugal mais naafiq moom inna al munafiqina fi darki l asfali min an naar walan tajida lahum kon moo gën a yées yàlla nee na naafiq ci digg gëlub sawara gël mooy bu nu wàqee sawara wi laja ca suuf suuf su ñuul soosa moom la ñuy tudde ab gël foofa la yàlla ni moom lay dugal am naafiq te naafiq amul ku ko dimbali yowmal qiyam ci loolu mbugal moom kon moo taxan yonent bi nii ayatul munafiqi thalath ida xadasa kazab wa ida waada axlaf wa ida tumina xaan yooyu yëpp boo ko xoolee nee na màndarga yi naafeq yii bu ci nit amee benn màndarga am na benn màndarga ci naafeq su dajalee yépp nag doon na naafeq piir kon mooy lan saa yu waxee wax safaan su su soo su di su diggee wutal digg ba soo ko wóoloo mu war la kon kii amul kóllëre képp ku amul kóllëre nag te boole ñetti jikko yi ñetti melokaan yi ab naafiq la loolu noonu loolu ko yonent bi leerale ngir ñu moytu ko bi ci topp mooy wafa kóllëre dafa doon jikko joo xam ni jikko junu sant la ci ki dem ki ki ki nga xam ne moo nekk ci lislaam ak ki ñëkkut ci lislaam ndax ci jaahiliya bu nu seetee arab yi dañoo fonkoon fedd fedd li kóllëre lool mottali kóllëre ak wóor ak doylu nit bu ko defee dañ koy fonk lool loolu moo indi woon turu Seydina Muhammad ñu tudde woon ko laata mu lislaam ñu tudd woon ko al amin nga xam ni dañ ko wóol woon lool mu doon jikko ju arab yi daa puukare woo di ko damoo waaye yàlla dikk indi lislaam mu feddli ko ba tax na xaata wax na wax na jaahili ci eh, wax na banu israil di leen wax ni wa awfu bil ahd wawfu bi ahdillahi ida ahadtum wala tanqudu l aymana wala tanqudu l aymana bada tawkidiha yàlla di wax ni ko na mott li li nga xam ni mooy kóllëre rek te buleen ko ko fecc ginnaaw boo xamee ni fas nañ ko ba noppi Eh, yonent bi waxaat feneen ne laa diina liman laa ahda la eh, way waay amul diine ñu ne ko amul diine mooy kan muy mu ne mooy ki amul kóllëre ki amul kóllëre amul diine eh, bi nu ñëwee ci foofu noon naa la léegi kóllëre dafa doonoon melokaanu yonent yi ñu jox ci benn misaal wala ñaar kepp ndax jëkkanteeg waxtu bi euh, Seydina Ibrahim yàlla da ko melal melokaan woowu tagg ko ci alquran wa ibrahima alladi waffa ibrahim mi nga xam ne mottilikatu kóllëre la kóllëre ga mu sëqan ak borom bi subhanahu wa yàlla wax ko ni ko na jël doomam bu tudd ismail rendi ko mu mottali kóllëre googu yàlla santoon mu def ko yàlla tagg ko tagg Ismaayil euh, Ismaayil xam nga ni doom ni mu neexee yàlla sant baayam mu rendi ko mu nangu ko moom it looloo waral mu ni wadkur fil kitaabi Ismaayil innahu kaana saadiqal wa'di wa kaana rasulan nabiyya yàlla ni eey muhammad fàttalikul ismail sa maam ismail doomu ibrahim kooku nga xam ni dafa nekkoon ku dëggu di mottali kóllëre waaye dafa nekkoon ab yonent nekk ku nu solo gis nga xoolal ci waxiinu alxuraan gis nga dafa jiital kóllëre ba pare doog a indi sax donte leen nubuwa ak ak risaala ni mu réyee waaye dafa jiital kóllëre ba pare doog a indi loolu alwaafi alwaafina bil ahd alquran tuddoon nañu mottili kóllëre ñu tudd ci ibrahim moomu tudd ci ismail tudd ci ay yonent yu bari yépp ku mel ni idris ku mel ni ayub yépp doonoon ay yonent yoo xam ni boo toppee histoire mën nañ ni yonent yépp ci kóllëre lanu séqoon ak borom bi subhaanahu wa taala wala moom la leen yàlla gën a déel jox leen ko waaye ñoom ñépp ñu mottali ko euh, ba salafu saalix bu fekkee yonent bi salaa sallam kenn waxu ko moom ndax kooku bépp kóllëre bu mu mën a doon yonent bi daf ca tegoon tànkam taxaw ca waaw yàlla sal moo tax mu tagg mboolem ñi nga xam ne ay jullit lan way gëm yàlla yi nga xam ne danoo gëm yàlla waaye dëggal seen pas-pas ba mottali seen kóllëre qad aflaha al muminuun alladina ba mu dem ba li amaanatihim wa ahdihim raa'uun la ca teg min almuminina rijalun sadaqu ma ahada allahu alayh fa minhum man qada nahbu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila yàlla ne Eh, jullit yi ñi gëm yàlla way gëm yàlla yi am na ci ñoo xam ni dañoo dëggal seen pas-pas mottali seen kóllëre ci fab seen bakkan joxe ba fab ba kóllëre googu ba keroog ñuy faat am ñoo xam ne laata ñuy faat ñoo ngi ci kóllëre googa am ñoo xam ne dunu ko mas a soppi mukk kon ñooñu li ñu leen tàggee mooy dëggal ak kóllëre waaye sax ca ba faatu te duñ ko soppi mukk wa islaam islaam def na jikko bi muy kóllëre mu def ko melokaan ci melokaani jullit yi kon bu nu ñëwee façon kóllëre yi bari na lool kóllëre diggante yàlla ak jaam ñi waaye kóllëre diggante jaam ñi ak jaam ñi kóllëre diggante yàlla ak jaam ñi mi ngi tàmbalee ci jamono bam ne alastu bi rabbikum boobu kóllëre la yàlla ni leen ndax duma seen boroom ndax duma seen boroom waaye kóllëre ga ma nga tàmbalee ca ba tey fa mu jëlee kóllëre mu gaaral ko li nga xam ni moom mooy asamaan gaaral ko suuf gaaral ko montagne yi gaaral ko doomu aadama ñooñu yëpp dañoo bañ doomu aadama dikk gàddu ko te mooy masuliyab lislaam responsabilité bi lislaam ñu gàddu ko kóllëre gu mag la muy jaamu yàlla muy julli muy woor muy azaka muy nangul yàlla ak yonent bi yooyu yëpp ay façon kóllëre la goo xam ne dafa jaar diggante borom bi subhaanahu wa taala ak nit ki ci boppam moo tax yàlla di wax ni wa id axadna mithaqa bani israil laa taabuduuna illa allah wa bil walidayni ixsaanan wa bi dil qurba wal yataama wa qulu linnaasi xusna waaye wa aqimu salaa wa aatu zaka summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun gis nga ni loolu la waxoon banu Israil waaye aaya bi day wàcc ci mboolem jullit yi yépp ndax dañu war a jël misaal ci li tax yàlla di bind loo di wax doom banu Israil lii nga xam ne mooy aaya bi jégleelu leen ko ñoom dong waaye jullit yi ñoo raw ci jël aaya bi jëfandikoo ko waaw moo tax mu naa yàlla dafa jël kóllëre gaaral ko ban banu israil ni leen bu leen jaamu kenn ku dul yàlla waaye ngeen rafetal jëm ci seeni way jóg ngeen rafetal jëm ci jirim yi rafetal jëm ci dëkkandoo yi ñu way jigéen ñaa léegi jirim yi rafetal jëme ci miskin yi waaye na ngeen wax ak nit ñi wax ju yiw kon loolu yëpp kóllëre la ngeen taxawal julli ngeen natt azaka ngeen ñooñu ba mu leen ko waxee dan ko du muy wan ko ginnaaw waaw moo tax yàlla di leen wax ni ba ma leen ko waxee da ngeen a dummóoyu wan ko ginnaaw euh, kon loolu jullit yi al bu buñ ko waxee mooy képp koo xam ni wan na ginnaaw kóllëre yàlla gi fecc kóllëre ñaawal bañ a jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye bàyyi julli wala bàyyi jaamu yàlla saa yoo ko defee yaa ngi fecc sa kóllëre sa digganteek sa borom bokk na ca ci façon coloré euh, tasaare xam-xam tasaare xam-xam ak leeral xam-xam nit ñi jariñu ci loolu coloré la boo xam ne borom bi moo ko santaane moo taxoon waxoon na ko banu israil ba tey wa id axada allahu mithaqa bani israil wala feneen fa ca aaya ba sax wa id axada allahu mithaqa alladina utul kitaaba euh, la tubayinunnahu naas wala taktumu gis nga ni alquran kon nee na li leen yàlla xamal nañ koy xamle loolu mooy lan li mu wax banu israil ni yàlla dafa fesante kóllëre dafa jox banu israil kóllëre dafa jox ñi nga xam ni ñooy ahlul kitaab muy nu yahud yeeg nasaraan yi kóllëre ni leen na leeral nit ñi eh, lii nga xam ni moom laa indi ci yéen waaye bu leen ko nëbb fa nabaduhu waraa zuhurihim la ca teg mooy ñu sànni ko ginnaaw wan ko ginnaaw du mooyu ko euh, kóllëre bokk na ca euh, lépp loo xam ni doomu aadama mi ngi koy def te dugal ko ci liggéeyal borom bi subhaanahu wa taala ngir man caa am tuyaaba loolu yàlla moo la ko sant kóllëre la sa digganteeg sa borom waaye kóllëre la sa digganteeg doomu aadama ji moo tax sëriñ bi tënkoon jëf lu baax ak wax lu baax mu tënk ko ci baatu xidma rek saa yoo ko defee yaa ngi ci dëgg-dëggu li la borom bi sant subhanahu wa taala bu nu seetee léegi ñëw ci li jëm ci kóllëre ba tey yar njaboot gi kóllëre la goo xam ne borom bi moo la ko sant waaye mottali day defar société day bokk ci li nga xam ni mooy melokaan yi nga xam ni moom la la yàlla taxawuloo ak njaboot ngir nga man leen a musal ci safara ba muy wax yaa ayuha yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla teet leen teetal leen seenu njaboot teet leen safara ngeen teet teetal seenu njaboot safara ngeen moytu ko euh, fedd kul li kulëre bu nu xoolee arab yi dañ koo fonkoon dafa amoon ku ñuy wax Nu'man ibn Munzir ab ma ab euh, buur la woon bu mag bu nekkoon ci xiira mu amoon ñaari bés at mu nekk da ci am ñaari bés am ñu ni semaine bu nekk ñaari bis bis benn bi mi ngi ko tuddee bisub euh, bisub mbugal benn bis bi mi ngi ko tuddee tudde bisub xéewal boo dajeek moom ci bisub xéewal bi daf lay jox lu mu yoroon dina la woomal ndax dina la woomloo ndax dina la jox alal dina la sant dina la gërëm dina la berndeel lépp lu mu am dana la ko jox waaye boo dajeek moom ci bis bi nga xam ni bisub mbugal la daf lay rey ba bis am jëmm joo xam ne ci arab yi dafa dem rëbbi ndax njabootam mu jàpp benn lëg kese mu ñëw ba daje ak Munzir te bis boobu bisu mbugal la mu xam ni bis bi da ko rey mu ni taxaw ni ko dama bëgg nga may ma ma dellu ci sama njaboot ngir man leen a jox lëg gi ndax ñoom kat dañoo xiifoon lool maroon lool xaw a dee ak xiif moo tax ma génn ngir yàlla wërsëgal ma lu ma leen yóbbul yàlla wërsëgal ma lëg gii ma bëgg ko delloowaat yóbbul leen ko loola nag boo ma ko mayee def nga lu rafet mu ne ko kan moo lay garanti kan moo lay garanti kenn ku ñuy wax Sharik Sharik ibnu Omar ibnu Surxil ni ko man maa lay garanti maa koy garanti muy benn waay boo xam ne Taif la dëkkoon mu jël ko daal koy yóbbu mu dem mu bi mu ko jëlee d'accord koo garanti waa ji dem yóbbul xale yi la mu la mu kii daal di dellu si waat ñëpp yéem waa ji ne ko nag kon man duma doon ñetteelu nit ki gën a yées ci ñaar yi ndax ginnaaw yow attan nga ko garanti moom mu àttana dem dem dikkaat loolu kóllëre la te kóllëre googu du ko fecc daal di jël li mu yoroon lépp jox soroxi eh, sarik leneen li mu jox ko ki nga xam ne moom mooy eh, kooku nga xam ni moo ñàkkoon dem di rëbbi gis nga ni kon arab yi fonkoon nañ ko lool bu nu ñëwee ci Maulana Cheikh al Khadim eh, dundam yëpp fedd li kóllëre la woon moo tax képp ko mu jabootee wala kenn koo xam ne dañ la koy askanale faaw nga mën a mottali kóllëre looloo taxoon sëñ Abdou Khadre nekkoon nit koo xam ne dafa fonkoon kóllëre lool fonk ko mbokk lool waaye fonk li nga xam ne moom mooy euh, a pas-pas pas-pas boo xam ne jàpp na ko diggante nit ak moom wala diggante ku mën a doon gis nga ne kon dundam moom it dafa doonoon lu am solo lool kon bokk na li may njëkk a génne kon dund gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi dundoon moom sëriñ Abdou Khadir sëriñ Abdou Khadir kenn la woon ci coloré googu nga xam ne lenn la woon ci jëfandikoo coloré googu nga xam ni moom la leen sëriñ bi bàyyee woon buñ ci joxe misaal fonkoon na coloré ba coloré murit li ci ëpp lépp ci ndigal lay sotteeku ndigal moo lal taay mboolem kóllëre yi rek ndax lépp lu mën a doon ñu ngi koy fas wala ñu koy jàpp su amul ndigal duñ ko jëfandikoo moo tax kon kóllëre dafa lal taayu ci kaw ndigal ki nit kiy jëfandikoo kóllëre mi ngi jëfandikoo ndigalul borom bi waaye mu ngi jëfandikoo ndigalul Seydina Muhammad waaye mi ngi jëfandikoo ndigalul Serigne Touba Serigne Touba moo te ndigal xam nga fi mu ko tegoon daf daan wax ni laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qubuli bu leen di jëfandikoo dara lu àndul ak ndigal ndax ndigal dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy nangoo jëf moo taxan sëriñ Abdou Khadir ndigal loolu la tàmbalee woon ci wàllu kóllëre ci bi fi mboolem ñi fi nekkal sëriñ Touba ginnaaw sëriñ Touba daawul jëf dara ci jamonoy sëriñ Modou Moustapha te sëriñ bi yëgu ko sëriñ Modou Moustapha ci jamonoy sëriñ Fallou naka noonu ci jamonoy sëriñ Abdoulaye doy na sëkk misaal su masaa bëgg a génn dong dem baxdaat gu jege gii rek wala bustaan ci këram yi gën a jige wala fenn fu mu mën a doon dina laaj ndigal sëriñ Abdoulaat mu jox ko ndigal lool te moom xam nga ne da ko fonkan ba ay waxam da daan wax ginnaaw waxi sëriñ Abdou dara newu fa kon gis nga ni kon gisul boppam waaye li mu gis mooy li nga xam ni mooy rek ndigal ak kóllëre goo xam ne war na koo fas digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jaboote kóllëre googu ndigal moo ci jiitu waaye Cheikh Abdou Khadir bokk na ci ay mottali kóllëreem lépp lu ko waaye masa wax ba fasanteeg moom loola du ca manqué araf du ca manqué aw sef loolu mi ngi mel ni imaama gi rek doy na sëkk misaal ñu jox la ak imaama te xam ni xill ak imaama moom ni mu diisee ak ni mu jafee ak ni mu jafee nga boole ko ak sa soxlay bopp ak li nga xam ne moo la war ak sa warteefi bopp ak yi nga xam ne mooy say nawaafil nga xam ni yëpp nga boole ko loolu lu jafe-jafe la waaye yàlla dimbali na ko mu mottali kóllëre googu ba am na ñu ne sax ñaari yoon wala lu néew a néew la ci manqué ci jamono xam naa ni eh, sëriñ Lamine wala ñeneen ñi dinañ ci ñëw bokk na ci mottili kóllëreem li ko yàlla sant muy jullit bi yàlla dafa sant nit mu rafet njort ci mboolem koo xam ni maanaam ab jullit la ba tax na sax yonent bi doon na wax ni bu ngeen gisee ab jullit muy dugg a jàkka na ngeen ko séeréel gëm iza ra'ayta al muslima yadxulu al masjida fashhidu lahu bil iman loolu rafet njort la bokk moo tax sëñ Abdou Qadir am na waa ju mës a ñëw ci moom ni ko mbakke diw dey moom julleem gi Euh, dafa yéex lool mu ne ko waaw da ko itteel rek da ko itteel sallaaw da ko itteel rek nanguwul sax waa ji yeggale li nga xam ne mooy kàddu gi ngir rafet njort gu mu rafet njort ak mottali kóllëre googa ko borom bi sant subhaanahu wa taala waaja yokkaat te ni ko moo ne diw de moom it julleem gi daa gaaw lool mu ne ko daa bañ seytaane yàqu ko daa bañ seytaane yàqu ko rek sallaaw daa bañ seytaane yàqu gis nga ni kon kooku bëggul lu dul rafet njort ak mottali li nga xam ne moom mooy li borom bi subhaanahu wa taala sant la ci li nga xam ne mooy ab jullit bokk na ci mottali kóllëreem da daan roy yonente bi li yàlla fasanteeg jullit bi ni ko laqad kaan lakum uswatun xasana laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana gis nga ni sëriñ Abdou Khadir da koo dund mooy waxam jëfam ak colom ak léppam da ko delloo waatam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu nag laa xarwa du du bettee du nekk loo xam ne lu lu yéeme la ndax li tax mooy ak dundam la loolu lu nu ko mooñaale la ba pare da ko dund da ko da koo dund nekk loo xam da koo donn ndax li tax sëriñ Tuubaa moom it doon na wax nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli shay'in wa ma abaahu yabaahu daraan wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina Muhammad di ko tànn ki di mbooleem mooy te moom mooy ngën ji mbindéef nee na moom moo doon sama jubluwaay te ci lépp nag ci lépp la waxoon ci lépp fii kulli shay'in ci lépp kon jubluwaayam du wan dara lu du yonent bi sallallahu alayhi moo tax eh, mu ni lépp lu ma bañ bañ na ko lépp lu mu bañit dama koy bañ kon moo taxoon sëñ Abdou Khadir loolu la doon dund sëriñ bi ci kóllëre daana ko mottali ci mbokk yi yi nga xam ne moom la bokkal daa dox jógal boppam ngir ziyaare mboolem yi nga xam ne ñoo fi nekkal sëriñ Tuba waaye dund googu mu dund noonu dafa nekk dunduk lislaam ndax da daan wax istiqaama istiqaama nag mooy euh, mooy bañ a yéesal waaye bañ a ëppal noonu la sëriñ bi doon dundee noonu moo nekkoon li nga xam ne mooy dundu Cheikh Abdou Khadir waaye mu nekk dund goo xam ne dund gu fees dell la ak xéewal waaye dund gu fees dell ak njariñ benn tomb boo ci jël ci sëriñ Abdou Khadir ci dund gi mu doon dund ci wàllu fa mottali kóllëre doy na sëkk àddina bi pour ñu man cee jariñoo kon gis nga thème euh, yu mel nii wala jataay yu mel nii euh, jullit yi dañ ko war di baril ngir lan ngir mën a jàngat ngir mën a jël mag ñi nin doon dundee ñu teg sunu tànk ndax jamono jaxasoo na jaxasoo goo xam ne lenn dong moo mën a doon solution bi mooy ñu delluwaat ci dund yi nu mag ñi waaye ci ni mag ñi ci jëf yi ni mag ñi ñu jéem koo jël jéem koo pratiquer jéem koo dund bu boobaa dinañ am jamono ju nëtëx jamono ju leer naññi jamono joo xam ne ju defar junu junu mën a defar suñu société lay doon ndax société ni muy baaxee bokk na ci nit ki dafay am kóllëre kóllëre bu amee ci société société bi baax moo taxan ñoom daawunu nangoo xaajaloo waaye bokk na ci seeni i mooy ni ma ko waxee ndigal waaye dañuy dafay nekk loo xam ne toppante toppante ci saa sune moo taxan ñu réussir ci seen dund ci saa sune gis nga ni kóllëre Seydina Muhammad mi nga xam ne sëriñ bi moom la tànn moom la doon dund te sëriñ bi bu dee tànn dara lu mën a doon bu dee lislaama sax daf nu daan tànnal la gën sëriñ Tuubaa li gën la tànnal day fekk lu baax mu tànnal nu ko waaye day tànn la gën ca la baax la baax lu mu mën a doon la ca gën la nu daan jëlal looloo taxoon mu daan wax euh, mag ñi ci njaareem di leen wax ni saxaaba yi ñooy seen baay saxaaba yi ñooy seen baay saxaaba yi ñooy seen baay ngir lan ngir ñu mën a roy ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim moo tax ni yonente bi salaa sallam ku mën a na feddali kóllëre la da ko matale woon daa ko dund sëriñ bi teg tànkam fa nga xam ni moom la yonente bi tegoon tànkam Cheikh Abdou Qadir ñëw mottali kóllëre googa di ko teg tànkam moom it fa nga xam ni fa la ko sëriñ bi tegoon doy na ci misaal ci yonente bi Aïssa nettali na ni yone euh, yonente bi ci fonk kóllëre gu mu fonkoon kóllëre daf daan tudd Xadija lu baree bari dafa fiiroon nee na ma nee na Aysa nee na man musuma fiire jigéen comme ni ma fiire woon ci Xadija euh, ndax nee na yonent bi da ko daan tudd lu baree bari léeg-léeg daf daan rey ab gàtt toj ko toj ndawal ga dem yët ko ñi nga xam ne ñoom ñooy xariti Xadija yi muy seet xariti Xadija yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yonent bi dikk di fab ndawal googu di leen ko jox nga gis ni kóllëreem eggan na ci ci Khadija yonente bi salaa sallam Aïcha nee na daf ko daan tudd lu bëree bari waaye da daan wax ni innaha kaanat wa kaanat wa kaana lii minha wa walat wa kaana lii minha walat da daan wax ni moom ne moom Khadija nekk na nii nekk na nii waaye amoon naa sax ci moom ak njaboot li mu jublu mooy Khadija nii Khadija naa toujours da daan wax ci li nga xam ne mooy soxna ah, Khadija moo tax sax am na bis ah, soxna haalata haala dafa bokkoon ak Khadija bint Xuwaylid la dafa bokkoon ak Khadija waaye nuroo ak Khadija lool benn bis muy ñëw di yëglu ngir ñëw ci kër yonente bi salaa sallam nee na Aïcha bi ma ko yëgee eh, dama fiir ndax kàddu haala googu daa wax ni li wax ni dafa nuroo ak Khadija nuroo goo xam ne nii tax na ma daan wax yonente bi salaa sallam eh, Khadija eh, naa ko ma tazkuru min ajuzin looy tudd ci màggat goo xam ne màggat ci màggati Xuraysi la bokk nekk koo xam ne dafa eh, faatu bu yàgg-yàgg loolu nga ciy tudd xanaa amul beneen jigéen bu mel ni moom gis nga ne kon loolu yëpp ak dundu yonent bi salaa la waaye dunduk saxaaba yi la mooy dunduk Serigne Abdou Khadr moo nekk dunduk ki nga xam ni moom mooy Serigne Touba ridwanullahi alayhi kon mbokk yi ci tënk loolu lan mën a tudd ndax du ñu jël waxtu yëpp waxtu wi daj tànc nañu nekk na loo xam ne dañuy exposé rek ni ko lislaam gisee indi ay misaal yu ndaw ci dunduk sëñ Abdou Khadre li ci des eh, Serigne Lamine dina ñëw tënkal nu ko ci ay xasida waaye dina ñëw defal nu ko ci ay eh, li nga xam ne moom moo koy mooy taaliqaat yi nga xam ne moom la ciy teg kon mooy mottali jataay bi ñi ngi jégg lu baax di balu àq di lépp lu ci rafet ci borom bi subhaanahu wa la lépp lu ci dëng ci xërteg doomu aadama la ak suñ dëngu làmmiñ ñi ngi jégg lu baax di balu àq mbokk yi wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah wax ko ci yonent bi sunu borom li ñu mën def mooy euh, xam ni Cheikh Abdoul Khadir Mbacke bu ñu dee wax moom lim ci jëf dañ ci indi benn boo xam ne kóllëre jullit dafa am digganteem ak sunu borom am digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa am digganteem ak say mbokk ak mbindeef yi benn bu ci nekk bu ñu ci benn xisa dana mën a doy jëloo la Cheikh Abdoul Khadir digganteem ak boromam dafa am laay yoo xam ne moo génn ci alxuraan nit ñu baree bari yor laay jooju di ko jëfandikoo te ñi ko gëm jëfandikoo lépp jafe ja sëñ Abdou Khadir nag moom lañ gis laay jooju mu jëfandikoo mu jëfandikoo lépp mooy wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu ku wakkilu ci yàlla mu doy am na ñoo xam ne dañu wakkilu ci yàlla waaye buñu jaaxlee seeti leneen boole kook yàlla moom la dund gépp doo ko ci yàlla kon nag matal kóllëre diggante sa borom boo ko defee sunu borom moo lay wommat jox la jikko yi ngay matale kóllëre nga man ko matale ak say morom xasida ga maam li laa ci wax yaa ahla kanni am ngeen fi kenn ku nekk kenn muy seyxu jiili moo doon imaam ja kay doomi daam ja ka doon maam ja moom seyxu jiili al istixaama jikkoom la ndaama bindam la daama dikkaat di jiili tawxiid ju koojul su mejjul ak xol bu gàkkul kenn du ci jiili du takki gàllaaj du jànni koy laaj doonul ku ñuy ñaaj moom seexu jiili du takki téere du xoob du cëwri du ñaan lu bayre moom ko jiili du takk ay xaaw du tiimi pettaaw du ñaan ci luy naaw sànni ko jiili du ñaan ci xomb du sangu xamb diine la xamb moom seexu jiili du takk ak fas du sarxe aw fas te jublu caa fas lenn di jiiri du ji njaq ñu di ko séq du sarxi séq ngir fegu jiili du danki nakk ngir na fi nekk moo tax ku nekk warmal na jiili du xëy wisum ndox jël béjjinam sox du fay lu ay wax moom say xu jiili du leb du leble day may du sar day may du able gàddaw ko tayle du jukki jiili du wut xarum yar def ko ci biir kër foog ne da koy aar ci lenn jiili buñ musu it jat du ma ca jat du ñaan ngir jot bakkan ba jiili laa wax ci jiili taxul ma jeele te ku ko boole amul ci jiili yii ñaar fukki mbir ku wëri sa mbër sa sa mbër daw fi ba dem mbar ngir sóoru jiili day mujj rek daw ni bàyyi naa yow kii yoon wi muy aw wéet na ci jiili tawhiid ju sell sax ca ni cell ba jàll jàlle mi ngi woon ci jiili boo wakkirloo ci yàlla lu yàlla dogal dalay gë gërëm looy musul nga di ko musul ci yàlla Cheikh Abdou Khadir ñaar fukki jikko yi mu boole néewaan yu gis ko feneen moo tax carte d'identité bi laa ko tuddee foo ko mën sànni rek boo ko yóbbu gisee ñu ko bu dugg Cheikh ndax ñaar fukki jikko yëpp a ngi ci moom lenn lu mu daa ci mel noonu amul digganteem ak mbindeef yi nag ak kóllëre gi mu am digganteem ak mbindeef yi li ngi ci euh, li nit ñi ñëpp sàggane nit ñi li sàggane mooy ëpp déel fi mu doon ku ne cinq def nangam day bàyyi ba six heures jot mu def ko Cheikh Abdou Khadir ne loolu la fonkoon li nit ñëpp sàggane bàyyiwuma mag a gone seex ji moom fii la mane mboolem ko doon asamaan mooy fonk ëpp déel bañ wor moom lu la dig faye ko bar moom lu la wax loole la nar lii rek a tax mu néewi noonu waxtu mbooloo mi daje ajuma ji fa njëkk a teew kenn du nañ laaj ilimaan tabaski mbaa korite ca laa ko gën di nawati otom bi mooy njëkk a teew tabaski mbaa korite ca laa ko gën di nawati kenn du ni moom laay négati otom bi nag mooy njëkk a teew saa bu desee fukki minute mu ne gede na jege kat ngir weñ gi mën naa sikk kat wala mu paan yeexu doxin ren mu am ak juróom biñ ko defee ilimaan mooy ilimaan ji amuloo naayib Cheikh Abdou Khadir amul naayib kenn julli ku ne moo ko julli juróom fukki at ak juróom la julli bi muy dem Màkka rek la jiitewul julli juróom waxuma la julli mbooloo waaye julli mbooloo juróom fukki at ñaar fukki at ak juróom julli nga jiite ko ilimaan la def waxtaan li ñu sëñ bi wax dafa doy sëkk ba tax liñ ci dolli mooy soxna Mambusa mi nga xamante damaa ne woon ci kër ga sëñ Abdou Khadir yónni ma ci moom loolu fukki at ak nangam yoo xam ne maa ngi dem di dem ci nësru waaye nag li ci gën a yéeme mooy bu lay yónni ci boppam dan la jàngal jàngalin woo xam ne kóllëre na ko war a séqe ca ña ngay fekki dafa am bis euh, ndax soxna Mamadou Moussa ñëw bu di ko nuyoo sëñ bi ba noppi sëñ bi way dem da jox paas wala mu jox la dara soxna Mamadou defoon ko bari kerse goo xamante ne bu dikkee bu ko nuyoo danaa ko da may ndax su ma gisee luy dem ma dem ndax li bañ mooy tàggu ko rek mu di ko jox dara soxna Mamadou ku bari woon kersa la woon sëñ Abdou Khadir yónni ma ci bis nag ci moom am lu ma ko jox ma jox ko ko ba noppi ma dikk sëñ Abdou Khadir ma ana ko ma ne ma ne ko waaw mu naa ne ana sëñ Abdou doomam yëpp mooy seen waajur waaye sëñ Abdou lay wax ne ana sëñ Abdou ak mu ne ana sëñ ma ne ko ma fa sëñ Abdou Xaadir ni ma léegi waaw euh, sëñ Abdou ak ba nga jógee ci soxna Mam Bousso ba nuyu ko loo wax ak moom ma ne ko man ko dama ko nuyu ko ñaanal ma rek mu ne ma déedéet nit bu duggee ci kër borom kër ga day nuyu borom kër ga wax ko lañ ko yónni danga naan ko sëñ Abdou Xaadir ma yónni waaye nag li ma la yónni moom ba ko wax waaye nee ko ne sëñ Abdou Xaadir ma yónni su wut si waaye dugg ci kër nit ba génn xamul la nga wuti loolu bu ko defati nga xool mi jàngale kóllëre mam ak warmaal gi warmaal ñooñu jërë ngeen jëf ngeen salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu wax di la wax